galasi saar juróom kirist nu daggal suñu buumi njaam ngir goleel nu kon dëgër ci seen ngor te bañ a delluwaat ci njaam déglu leen man pool maa leen koy wax bu ngeen italee xaraf kon kirist dootu leen jariñ dara te maa ngi dellu di waxaat ne képp kuy faratal xaraf faw nga sàmm lépp lu yoon wi santaane yéen ñi faxee jub fa kanam yàlla ci kaw sàmm yoon taqaliku ngeen ak kirist dëddu ngeen yiwu yàlla waaye njub gi nu yàlla dencal ëllëg nu ngi koy séentu ci kaw ngëm ak ci ndimbalu xelu yàlla ndaxte bu ñu bokkee ci kirist yéesu xaraf ak bañ xaraf dara amu ci solo li am solo mooy ngëm gi jëf ci mbëggeel ni ngeen jógtee woon de baax na waaw ku leen dog ba ngeen bañ dëggal dëgg li ñu leen xiir jógewul ci yàlla mi leen woo des na ne tuuti lawiir day tax tooy lu farin bépp funki waaye teewul borom bi jox na ma kóolute ci yéen biral na ma ne dingeen bokk ak man xalaat léegi nag kii nëxal seen xel ku mu mën a doon yàlla dina ko mbugal man nag mbokk yi bu ma doon faydaal xaraf ci sama waare kon duñu ma fitnaale nii te it li may yégle ci deewu kirist ca bant ba dootul naqari kenn ñi farataal xaraf te di leen dëpp nañu gën a sori ci seen réer bu yeboo sax ñu dagg seen ngóoro ba dara du ci des yéen nag mbokk yi yàlla woo na leen ngeen nekki gor waaye nag bu leen ci sukkandikoo bay topp seen nafsu waaye dimbalante leen ci kaw mbëggeel ndaxte yoon wépp ndigal lii a ko tënk na nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp waaye moytu bu ngeen dee màttante ak di lekkante dingeen yàqante li ma leen di wax mooy lii dund leen ci xelum yàlla kon du ngeen topp seen nafsu ndaxte suñu nafsu am na ay bëgg-bëgg yu méngowul ak yu xelum yàlla te xelum yàlla itam am na ay bëgg-bëgg yu méngowul ak yu suñu nafsu ñoom ñaar dañoo juuyoo ci bépp fànn ba tax lépp lu ngeen bëggoon a def du ngeen ko man waaye bu ngeen toppee xelum yàlla nekkatu leen ci kilifteefu yoon wi kuy topp sa nafs yu nii ngay jëfe njaaloo xalaat yu bon defi ñaawteef ak say cër xërëm luxus noonoo ak xuloo ñeetaane xadar diiroo mbagg féewaloo ak xaajaloo ki ñaan màndite ak xawaare ak yeneen yu ni mel léegi nag maa ngi leen di artu ni ma ko defe woon ñiy jëfe noonu duñu am cër ci yàlla waaye lu xelu yàlla mi di meññ mooy mbëggeel mbég jàmm muñ laabiir mbaax kóllëre lewetaay ak maadote yoon wi terewul yu ni mel léegi ñi bokk nag ci yéesu Kirist daaj ñu seen nafsu ca bant ba wàcc ko fa moom ak ay xemmemam ak ay bëgg-bëggam gannaaw nag nu ngi dund léegi ci xelum yàlla kon nanu ko topp bu nu tiitaru di dëkkante di iñaanante